bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalqi sayiduna wa mawlana muhammadan rasulillah salawatullahi alayhi bokki muallim ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax te it di leen baal àq ndax wax dëgg yàlla waroon na ma ay bis bu ne wala ñaari ay bis bu ne la xam ñu indi ko wax ko ci groupe bi waaye sunu borom subhaanahu wa taala dafa dogal ne léeg-léeg moom waxuma la groupe yi waaye say bokki bopp sax duñ la mën a gis loolu rek mooy coow li waaye ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm mu mel na nag euh, waxtaan wi tey dama ko dama koy def benn bu benn xeer bu jëm ñaari picc damay song rek waxtaan wi defandoo ko benn yoon ndax ma euh, Ginne la fa xew umpatul kenn wax ci dëkk ba la fa xew ñu bari xam nañ ko Euh, sama benn waay bu baax daf may faral di wax ne ma man Maodo dootuma defati ay mulaaxasaat ci groupe yi ma ne ko nga jàng lépp mu ne ah, nit ñi loo wax ñu ne Google nga ko jëlee te jur ñoom ak Google ma ko wax nga dëgg de man de li ma xam ba ma koy xam boobu Google ñëwagul woon léegi nag am na ci ñoo xam ne ñoom comme seen xam-xam daa gàtt na sama bos loo wax ñu ne ah loolu boo demee ci Google rek gis ko fa déedéet Google du nit di Google du nit ay Demba Samba Moodu ñooy dajale seen euh, seen xam-xam dugal fa xam-xam yooyu mën naa wuute sax ak yi nga xam ne keneen amoon na ko lu jiitu Google di ñëw moo tax waa Google sax léeg-léeg bu ñu bindee ba noppi naan ku am lu ci loo ciy complété nga complété ko loolu nag tabaarakallaahu mel na ne yéen dalu leen ñu ngi leen di ziara bu baax a baax kon nag fa tabaarakallaahu ñu wàlla dem nag ci Guinée Conakry gii nga xamee ne kin fa jëlee bërki démb wala boog démb mooy kii nga xamee ne moo di Alpha Condé xam nga <coughs> wax naa ko léegi du ma jaaraat ci géographie beeg maanaam géographie beeg ni ni Guinée bindoog réew yi mu amal frontière lu mel ne Sierra Leone lu mel ne Libéria lu mel ne euh, Sénégal gii ñu nekk ak et cetera et donc loolu ak Mali yooyu daanaka loolu ak jaru ko booy seet ak Côte d'Ivoire wala population bi nangam en tout cas ba deux mille ba deux mille euh, quatorze jàpp deux mille quinze capital bi nga xam ni fa la coup d'état bi amee ci Kaloum ndax Kaloum mooy buntu mooy buntu capitalu euh, Conakry ba 2014 jàpp 2015 waxuma nag waxuma génne yi képp de capital bi laa comme nga ne woon tey Dakar Conakry mi ngi toll ci 1 million 500 1 million 600 ci ay doomu aadama xam naa léegi nag lu mu gàtt gàtt capital ba war naa toll ci ñaari million jàpp million Dakar sax ku ëpp nit moom Conakry alors pour bañ a dellu si waat ci Dumbuya xam nga Dumbuya euh, wax naa ko ci benn group tey yaakaar naa ne formation militaire bi mu am benn soldaar même généraux yi nekk ci euh, Guinée Conakry bu mel noonu man xaw ko ndax Afghanistan gii nga xam ne bërki dee moo njaay mi ngi tàkk ba taliban yi jël réew ma américains yi dem seen yoon te fi mu toll nii ba tey rek tey tey tey rek tey rek foofu am na cong moo xam ne mii ñi ànd ak Mohamed Massoud ñu ngi ko doon amal ndax ñetti association mbooloo ñoo am ci Afghanistan mooy ñi ànd ak Massoud benn état islamique ci boppam ak les talibans loolu fokk ñu koy ràññi moo tax euh, bi américains yi demee ma gis jullit yu bëree bëri di ma jubale naan dàq nañ leen ma yéen xamu leen li xew sax ci suuf maanaam li ma bëgg a wax mooy ku ëpp doole dumb yaa mi wax ndax boo déggee ba tudd Afghanistan dafa demoon foofu moom ki def coup d'état bi tey dem na guerre ci Afghanistan demoon na ci Mossad bu Israël nga xam ne Israël foofu armée kenn gënu leen ko tàngale ci biir àddina bi def na fa quelques formations France moom waxaale wu ma ko waaye nag wax dëgg yàlla itam mm, bu fekkente ni dañoo doon delloo rek battu ba ca la kon mën nañoo wax ne tey fu mu toll tamit ci wàllu armée kii mu fa jëlee tey def na ci liggéey bu am solo muy Alpha Condé ndax Alpha Condé bu mu nekkee président moo contacté Dakar entre mille 2012 2013 ci premier mandat bi ndax xam nga Alpha Condé 2010 lañ ko njëkk a fal mais entre 2012 ak 2013 la yónni ki ko daaneel tey mu waxtaan ak gouvernement bi fi nekkoon. bu nga xamee ne mooy mooy bi fi nekk rek sax ba tey entre 2012 2013 ñu indi ko fii ci Thiès mu def ci formation bi ak yu demee noonu kon loolu dañuy jàpp ne ñoom yàgg nañ mais nag il a été repéré maanaam Alpha Condé yàgg na ko bàyyi xel ci sujaan gi nekk ci moom maanaam jàmbaar gi nekk ci moom ak lu demee noonu kon li ñuy wax mooy Guinée ko yóbbu fii lañ war a wax Guinée ko indi fii lépp ñeent lu mu am euh, ay coup am na fa ak yenn nit yoo xam ne dañ ko doon jéem a def te rëcc nag yi nga xam ne doon lañ ko jéem a def mu rëcc Alpha Condé am na lu mu ci def moom ci boppam mu rey ci ay nit ñu bëree bari mais Lansana Conté tamit en 1984 loolu histoire bu gàtt rek bu may bu may rappelé la parce que gis naa ñu bëree bëri ñu ci wax waaye am na lu bari loo xam ne dañ ko dañ koo dañ koo tëb ndax dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ca jamonoy président Senghor bi nekkoon fii ak jamonoy Sékou Touré ñi ngeen daan dégg ñu naan Senghor ak Sékou Touré jubawuñu daa amoon lu tax benn nit moo leen moo leen moo leen moo leen moo leen boole woon te kooku bindkat la écrivain la maanaam ku daan yore xalimaam di bind bind mu bare bari la may ñaan waa groupe bi su fekkente ne mën nañoo mën nañoo téye audio yi ba ma pare ndax daf may xaw a perturbé tuuti daal maa ngi ciy jégalu bu baax a wax kon nag ma ma bàyyi audio bi mu dem ndax daf ma perturbé. waaw dama wax léegi ne diggante Senghor ak Sékou Touré ndax Sékou Touré en 1958 maa ngi ci Guinée en ci la Guinée am indépendance boobu général de Gaulle dafa def tukki ñëwaat après ba mu fa jógee la ñëw Dakar de Gaulle ko su ngeen bëggee seen indépendance yéen a xam jël leen keroog ci français ci làkk tubaab le président Sékou Touré mi nga xam ne malenke la wax ci làmmiñu boppam ne wax ci làmmiñu boppam ne nous préférons la pauvreté dans la liberté que l'opulence dans l'esclavage keroog loolu la wax ci kanamu général de Gaulle en 1958. Euh, bokk ba fa déggoo demee ne leen jël leen seen indépendance da ko wax ci tubaab ne ko ñu ko jël tey ndax ñun dañoo préféré ñàkk ba noppi amuñu dara de ñu waa Guinée waaye nag ñu gore moom suñu bopp. moo moonu gënal fuuf ñu am buumuk jàmm tubaab yi takk ko ci suñu baat bi di ñu diri ba noppi dina joxub xaalis ñu am richesse. Sékou Touré nee na ñaar yi bu ñuy tànn ñàkk te am liberté moo ko ko gënal ci ci kaw kanamu président de loolu en 1984. xam nga waxoon naa fi benn bis na faatu na ci Maroc mais dafa am boo xam ne bii bi mu feebaree da ko demoon defi ko États-Unis d'Amérique moom Amadou Sékou Touré sët la ci su ma juumul sax Amadou Sékou Touré am na année boo xam ne bi ñëwoon na seeti sëñ Abdoulahat Mbacké léegi pour wax la ne leen Guinée problème troisième mandat du problème bi problème bi problème mu waaso la ak problème mu réew moo xam ne mii nañ ko yoree dafa baaxul ndax réew moo xam ne boo seetloo we at weer yàlla la ak ñaar Guinée sept à huit mois da koy taw da koy taw du daanaka du siwét benn doo xooxu màngo boo ko sànni woon ci suuf si tey jii bu subaa nga fekk ko mu sax am na fer am na bauxite am na diamant am na or ci boppam am na zircon lépp loo xam ne li mbellet la moo xam ne mi dafay génne euh, ci ci suuf ci suuf Afrique gi bu ci gën ku ci gën a richele euh, réew mi nga xam ne moo di Guinée Conakry amul kon problème bi su fekkente ne pauvreté dafa nekk war nañoo xam ne kon du au niveau international waaye tet ya fa nekk di jiite réew ma fa la yëf yi amee léegi nag maa ngi ñëwaat ci li tax coup d'état am. xam nga Alpha Condé day jëmm joo xam ne ji defe naa ne bi mu tabaxee këram bi mu tabaxee këram ci Conakry yi ak léegi matagul juróomi at. maanaam li ma bëgg a wax mooy amu fa woon kër mosu fa am kër booba ma nga woon France waaye tamit xeexal na démocratie nag loolu il faut ñu nangu ko ndax tëj nañ ko à vie nañ ko tëj. gracier ko waaye lu jiitu tëj googu di am ba mu nekkee France nekk fa étudiant ku ñu wax Jamal Abdel Nasser xaritam la woon ba nekkoon Égypte loolu sax xam naa bis du nekk ñu ñëw ci Jamal Abdel Nasser moomu la ak Kadhafi la ci aju ci Égypte ak band ak nekkoon na fa xaritam bi nga xamee ne nag dikk na ba nga xam ne bi ngi def élection en 2010 waa parti socialiste lu jiitu Abdou Diouf di di daanu relation yi nga xamee ne te Lansana Conté amoon na ko yépp waa parti socialiste la ko amaloon bu daan ñëw Sénégal gii daawut fanaan fenn fu du kër Moustapha Niass nii loolu information la boo xam ne bi nit ñu war nañoo xam lan moo leen boole parce que idéologie socialiste moo nekk ci bo ci boppu euh, euh, Alpha Condé waaye nag jàmbaar la boroomu fit la waaye ñaar daf ko yàqal mbiru askan ak butéel bi butéel bi euh, al isharatu takfilil aql moom butéel bi daawu ko bàyyi ak tamit xeexu askan léegi nag pourquoi politique yi am problème premier mandat mille 2015 pour Fuuta yi ci seen bopp ñoo def seen réunion bopp parce que man ñaari réew laa gis ci àddina bi gis naa sama xarit Cheikh Yérim Seck di wax lu mel noonu ci benn vidéo wax na dëgg wax na dëgg li mu wax ci wàllu population Guinée bi li mu li mu bindoo ak yooyu wax na dëgg ndax Cheikh Yérim sama wëlëre la ñoo jàngandoo ñu amoon entrant sixième ñoo nekkandoo woon ci benn école di jàng wax dëgg yàlla ca Louga muy sama lool ci wàllu sàkku xam-xam ay commentaire ak yooyu li seex Cheikh Yérim wax dëgg la mais man ñaari réew laa xam ñaar laa xam ci àddina bi yoo xam ne yii seen askan wi nga xam ne moo génn ci biti moo ëpp la fay dund mooy Liban ak Guinée Conakry maanaam lii pël Fuuta ci Sierra woon ndax Sierra woon dëkk la boo xam ne bii euh, moom ak Côte d'Ivoire astafurlah astafurlah moom ak Guinée dañoo dañoo frontière oo la nekk ci ay pël Fuuta ci Sierra woon man nañ fukki yoon pël Fuuta yi nekk fii ci biir Sénégal problème ethnie bi li ko waral mooy ci jamonoy Sékou Touré Sékou daa am ñaari affaire yoo xam dafa nekkoon ci moom un ku mystique la woon renseignement généraux yépp kenn ku nekk xam na ne Sékou Touré lu daan xew ci réew ma balaa timis mu jot ci mat naa toog moom Sékou Touré mi may leen di wax nii ba timis mu dugg ci benn oto bu xënt xënt xënt ànd ak benn waaye sol yëre bu woyof di dem ba ci benn feu rouge mu mu brûlé feu rouge bi fekk dafa mas ko woon kenn mënu koo xàmmee ba mu brûlé feu bi alkaati bi ne ko par na ko taxawal daal koy laaj permis mu génnee permis Sékou Touré jox ko te boobu kat mooy président de la république mu génnee permis bi euh, bi ne ko dama lay dama lay dama lay verbaliser dama lay bindal nga dem fay police parce que yow li nga def ni du yoon xamul la sax mooy président de la république bu Guinée waa ji delloo na Sékou Touré ne ko waa Sékou ne man maay président bàyyi la mu ne ko non non non dafa am lu may seet bàyyi rek alkaati bi ne ko wàccal mu ne ko non waa comme jël nga samay permis kay yorutal may wàcc léegi mu verbaliser ko ne ko suba nag ma fekk police da ngay fay parce que li nga def nii réew mi daf koy tere Sékou Touré na ko d' accord danaa ñëw fay suba ca police ba te boobu mooy président oto bi dem policier bi dem huit heures huit heures sept heures demi huit heures euh, ñu téléphoné ci police Conakry bi ana policier diw ñu ne mi ngi ne ñu ne ko kaay wuyu présidence mu ñëw neuf heures fa ko fekk mu toog Sékou Touré yeewu ñuy waxtaan mu ne ko yow nga ki nga doon arrêté ci guddi mu ne ko ah xaw ma ko de en tout cas infraction la def jaar fan war a jaar mu mu brûlé foofu ah affaire démb bi nga may fàttali ah bon d' accord man maa ko def de parce que waa ji li mu def daa jaaduwul président Sékou Sékou Touré ko pourtant man la woon de mu ne ko ah ñaare comme daan jàpp ci yu mel nii ba la jàppee da lay rey ci ay tooxi doon ak yooyu ñu ne xee mais waa jooju Sékou Touré da ko mujj jël daf ko conseiller de sécurité yokk ko teg ko ci pale bi loolu Sékou Touré def na ko jox ko ay garaat jox ko xaalis bu dul jeex protéger ak njabootam na ko yow alkaati yëpp bu nu meloon na yow léegi dina dox en 1980 82 wala sa wala 80 daal année yu demee noonu en 1980 voilà 80 président Sékou Touré dafa am lu mu def dañoo jàpp ay nit ndax booba amoon na xeex xam nga Sierra Leone woon ak Libéria la ñu ay réew yoo xam ne yi daanaka boo seetloo Euh, seen diggante Guinée dañuy taf tafal rek te Sékou dafa yàgg mën a cokkaas mook Senghor loolu tax mënuñu woon a jubóo dinaa dikkaat nag fàtte gu ko de li tax Sékou Touré ak Senghor mënuñu woon a jubóo ak jëmm ji tax mënuñoo jubóo dinaa ci dikk léegi alors ñu jàpp ay nit ñu bëree bëree bari def ramasse gendarmerie def ramasse ñu dem ci frontière bi jàpp ay frontière ay ay ay Sierra ay Libéria Sénégalais yi fi kenn xamul lu mu toll ndax dañoo toog ba 4 heures du matin ci bëccëg ci ramas na ñu képp koo xam ne ki doon nationalité guinéen rek ñu indi la ci kaso yi sécurité na léegi léegi nag ne indi leen ma nit ñi nit ñi ci palais ci ci ci cour bi nekk ci palais bi ñu fab ñoom ñu fab leen ñoom ñëpp indi Sékou Touré sol weex tal yore yore ab benn kaan benn yàpp ci loxo bi ñëw di xool nit ñi di leen xool ñun jàpp keroog ñu nekk ci suuf toog ci suuf lu mu gàtt gàtt gàtt mën na juróomi téeméeri nit wala juróom benn téeméeri nit Sékou di leen xool di leen xool te ñoom xam nañ ne Sékou Touré am na coxar goo xam ne ci ni mu daan doxale réew ma mën na leen a rey ndax booba sécurité bi dafa dafa dafa dafa manqué ci Conakry ci Guinée rayante bi bari sàccum jur bi bari comme li xam léegi Sénégal Sékou Touré rek bëggoon koo jeexal mu def ramasse boobu mu toog ba yàgg mu ne benn commandant ne ko ñii daal mbalit lañ moo xam ne boo defu nang soit ma delloo leen réew wala ñenn ñoo xam na leen rey wala ñu yóbbu leen armée moom daal ñoo xam waaye daal nañ leen faagaagal te faagaagal ga soldat kenn du ko jox ab détenu da koy rey ba mu yàgg bu xel mi dellusiwaat ci ci la toog ba mu yàgg mu ne muy xool nit ñi di xool nit ñi di xool leen xool di xool kenn ku ne mu xool la ba mu yàgg mu gis ci benn sénégalais xam naa ko xaw a góor yu mu ne ko ka eh eh di waa ji jóge la di ñëw di dox ci bopp nit ba mu ne ko yow ban nationalité nga foo dëkk xam naa ne man doo Guinée yow foo dëkk waa ji ne ko man Sénégal laa dëkk ab sénégalais laa mu ne ah bon tu es sénégalais mu ne ko ah oui mu ne ko d'accord soo ko turee taxaw di ko xool waaye foofu la ñam de mu koy xool yàgg mu ne ko yow da nga tax ma jéggal leen ñoom ñëpp mu ne ko waa ji ne ko ah jërëjëf jërëjëf Cheikh Touré président mu ne ko déedéet damaa gis ne vraiment tu es un bon musulman euh, sa gi daal ni mu jekkee ni mu reere reer ma xam ne yow tooxi doon yi doo ci dugg keroog juróom benn téeméeri nit yooyu sénégalais boobu moo leen muccloo nag problème Pël Fuuta yi lenn la damay ñëw ci àggale ci Sékou Touré ak Laye Camara doog dem ci li tax seen seenu pal di xaw a doy waar président Senghor dafa nekk Sénégal li may wax nii nag taarix la taarix la yoo xam ne yii waxuma ay google ak yu demee noonu de lii sama ma macha allah <laughs> ba ma ko xamee du tey euh, cinquante huit Guinée jël seen indépendance bu baax loolu ñëpp dégg nañ ko cinquante neuf wala cinquante huit ca feeba am na werante De Gaulle ñëw Sénégal du Dia ak Senghor dañoo daw fekke wuñ ko wala jooju Ndiaye fi desoon loolu histoire réew mi la ñëpp xam nañ ko am na nag yeneen taxali xaat yi ci am am benn bindkat bu ñuy wax lay Camara moom lañuy wax Camara lay enfant noir moo bind téere boo xam ne bii lépp lu jëm ci wàllu dictée mooy imla imla mooy dañ lay wax ngay bind te doo ko xool maanaam ñu féttale ko rek ci wolof bind na téere yu bari bi mu nekkee étudiant dem na jàngi France moom moom lay Camara téere bi sax ci boo koy jàng ni ci kanam bu ubbee bu ubbee xët yu njëkk yi da ngay dégg mu wax ci tubaab naan sama papa man forgeron la woon maanaam ku doon ku doon fëgg ay nee na am na benn benn serpent benn jaan boo xam ne bii seen totem la maanaam seen seen tuur la boo xam ne bii dafa daan ñëw ci véranda bi ba suba gi bu génn Laye Camara loolu lépp na nga koy seetlu du ko fàttaliku boole na ko ci téeréem boobu. mais comme lay Camara jubóobu loolu ak Sékou Touré Sékou Touré dafa ma at moo xam dafa dàq ñëpp di jàpp ci pël Fuuta yi rey Laye Camara bind benn texte ci benn benn benn benn benn journal. Sékou Touré di ko wut pour rey ko mu daw ñëw Sénégal Senghor Senghor Senghor nëbbu ko léegi nag bi te lay Camara képp ku jàng école ba def sembu de xam nga ki may wax nii Camara lay moo bind téere bu ñu tuddee l'enfant noir maanaam nit xale bu ndaw boo xam bi nit ku ñuul nga nekkoon ci tubaab yeeg yooyu ba tawarkàlla Senghor na ko kaay toog fii ci Sénégal lay Camara fii la faatoo ci fii la faatoo ci biir Sénégal te Pël Fuuta te te dafa jege woon itam Pël Fuuta yu nag Sékou Touré yemul ci loolu wala ma Sékou Touré yemul ci loolu ñu formé en 1963 fu ma juumul lu ñu tuddee OIA organisation pour l'unité africaine soit entre en tout cas entre 60 63 ci côté yooyu la ci Addis Abeba ci Éthiopie premier président bi nga xam ne moo njëkk a jiitee UA mooy Diallo Tali Diallo Tali pour Fouta la jege woon lool Sékou Touré ñu dem ba ca digg ba Sékou Touré créé ko ay affaire yoo xam ne kenn xamul lu muy firi waaw kii nangam nangam daanaka Diallo dañ ko dañ koo convoqué Cheikh Seck Touré day jékki-jékki rek bàyyi ba guddi mu ñëw la moom laa sonal la woon jàngkat la woon yàgg naa dox tukki euh, débatteur la woon et cetera et cetera mu fexe ba faagaagal ko te moo njëkk nekk africain tey buñ la waxoon UA gii nga xam tey tuddatul OUA léegi UA kan moo ko njëkk jiite ci Afrique benn Guinéen la mooy Diallo Tally mu faagaagal ko dem alors bi Sékou Touré faatoo en 1984 parce que Sékou Touré maa ngi koy wax ci benn groupe ci suba waxoon naa ko je crois que dafa dafa dafa défier woon waa waa waa waa Guinée ne leen ba yowmal xiyam du ngeen tiim sama néew ba yowmal xiyam yéen waa Guinée du yéen yéenay tiim sama néew wax naa léegi ci kaw ne Sékou Touré kuy bari mystique moo la ko ëppale mu feebar ñu évacué ko yóbbu ko États-Unis mu subir benn opération am na ñu ne jaar na Maroc fa la faatoo bon loolu jot naa information bi pendant des années est noonu la demee de toutes les façons tudd nañ ci Maroc alors Sékou Touré waxoon ne Guinée yi du ñu tiim sama néew yàlla yàlla yàlla mottali na wax jooju un faatoowul Guinée de deux bi muy ñëw ci kees lañ ko tiim lañ ko dugal kees googu ñu ko dugaloon nag bi mu ñëwee en 1984 est-ce que sax du woon mois d'avril xam nga kon jàppatuma weer waaye xam naa du sori foofu alors bi loolu amee presque chef d'état yu bëree bëree bëri dañoo ñëw Sékou Touré foo ko daan gis day yore sagaroo benn sagar bu weex di ko di ko di ko ëpp xaw ma gàllaaj la xaw ma lu mu ci jublu nag chef chef d'état yëpp ñëw toog pour ñu denc Sékou ndax wax dëgg yàlla jullit la woon itam bi ñu ñëwee boo koy bëgg a denc coow li na ko am benn président bu ñu tuddee Samuel do Samuel do moo nekkoon président bu Libéria il a été exécuté dañ ko rey ci reyin wu ñàpp bu mu metti dañ ko décapité dañ ko daggate maanaam mu ngeen baal ma ci kàddu gu mel ni ku fees nit mais ku jege woon Sékou la ndax booba relation yi nga xam ne Sékou Touré amoon na ko ak Libéria ba fa Charles Taylor nekkee la gën a metti te danaa ñu wàcc loolu loolu moo tax rébellion bi amoon foofu ba ba ba na Conté bombardé leen alors keroog la la la doo jël kaddu lu jiitu ci ci bëccëg bi ñuy denc Sékou Touré mu ne gars yi nañu tey kees gii Sékou Touré nekkul ci biir am na luy ñëngu ci biir nag waaye du Sékou garde rapproché yi ñëw ñu ne waaw ndax dañ koy tijji duñ ko tijji coow li na ko yan imaam ne déedéet li jullit bu faatoo dañ koy suturaal nañ bàyyi noonu te comme nee na woon ab néewam duñ ko tiim te jabaram ma ngi nii toog te réew mi taxaw sampoogul te malanke yi ñu ngi déglu nañ bàyyi nii Samuel doone li ma wax maa ko wax tey maa ko wax ëllëg ndax Sékou Touré njool bu àgg ca kaw la te kees gii matul un mètre Sékou xajul fii ñu daal di wax ci saan waxtaan seen biir ñu fab Amadou Sékou dem enterré ko bi ñu ko suulee nag quelque moment lañ ci teg am na benn transition bu nekk xuma jàll euh, euh, jàll Traoré xuma jàll jàll waaw jàll Traoré et cetera yu demee noonu am na ñaari transition yu gàtt ci weer yu gàtt yu am rek Lansana Conté ñëw def coup d'état Lansana Conté nag wax dëgg yàlla bi mu defee coup d'état def na ñaari élection gagné après loolu mais Lansana Conté moom itam wax dëgg yàlla soldat la woon jàmbaar la woon et tout waaye lu mu lu ñëw na Sénégal gi ay yoon lu ko lu mu ñàkk rek moom pon moo ko ko yóbbi Lansana Conté euh, jël pouvoir bi alors bi mu jëlee pouvoir bi mu def gouvernement d'union nationale comme li ay wax nii moo tax coup d'état bi am euh, Guinée bu ma gisee askan wi di di fekk ci damay tiit coup d'état kenn waru ko apprécier parce que ñaata coup d'état moo am Guinée askan wa génn taksu tooxi doona ji mu daj ci seen bopp loolu moo dal moo dal Mali Mali bi ngeen xamee ne mouvement euh, cinq juin boobu génn génn amoon na te góor góor googu jiite woon ko turuwaang may rëcc ba te Ibrahima Boubacar Keita nekkoon fa Ibrahima Boubacar Keita mooy IBK moom lañ fa defal coup d'état ni mu jóge mais ba ko defee coup d'état ba pare ak la ca xew ak la ca xew IBK nekkoon na président assemblée nationale bu Mali avant am lu jiitu moom mooy nekk président de la république mouvement 5 juin boobu ba yi manifesté pare fu mu mujj général euh, capitaine Keita bi ak armée ba ak léegi ba léegi daanaka jubóowuñu loolu lañ ci wax def attention alors léegi nag bi Lansana Conté ñëwee mu taxaw léegi nag daal di defar gouvernement expliqué ñu dawal tuuti mu def na ñaari élection def mais nag moom sax am na am na sax ndax def nañ ko coup d'état mu rëcc moo tax ma doon wax naan naan naan naan Guinée bu kenn wax ne carte carte rek la am na yoon def mu rëcc lancé na côté moom ca la nañ ko ñaari yoon mu rëcc waaye ñu doon def coup d'état ba nag dafa leen rey léegi nag Lansana Conté moomu bi mu nekkee bi mu nekkee à partir de quatre vingt quatre quatre cinq quatre vingt six yooyu jàpp quatre vingt sept pay quatre vingt huit ah. dafa am sax 88 89 yooyu la gaañu euh, am lu mu mas a def pour wax la Guinée seen armée bi nu mu doyee war ay maanaam dañuy fekk ay ay ay ay buujumaan ay ku leen neex ñu dugal ci armée bi ñoom seen problème mu niveau amuñu ko foofu dafa am benn dëkk bu nekk entre Libéria ak ak Guinée Conakry dañoo frontière wax naa ko léegi Lansana Conté bi mu nekkee président mu am benn mouvement de rébellion bu jóg jékki-jékki na bëri jóg dem laqatu foofu la wax woo jigéen ñi waxtaan ak ñoom ne leen ñun ay rebelle lañ genn wàll gi ay Libéria lañ boobu Charles Taylor moo nekk président bu bu ma juumul bu Libéria en tout cas ragal naa ko ndax liberia amoon nañ président defe euh, naa Sirleaf la tudd euh, président jigéen présidente jigéen waaye avant présidente jigéen bi dafa ñëw euh, ku jigéen kooku léegi nag George Weah moo fa nekk avant George Weah mi jigéen dafa nekkoon Sirleaf Charles Taylor nga fa woon ak beneen gouvernement léegi dugg ci village bi waxtaan ak ñoom ñi leen ñun genn wàll gi ay Guinéen lañ genn yàlla gi ay Sierra Leone lañ genn wàll gi ay nit lañ yoo xam ne ñu ngi dëkk Liberté ñi ci des nag ay kii lañ maanaam ay Guinéen lañ te Lansana Conté moom capital bi danañ ko abal armé wu nag sat ci armée yi armée yi ne woon Libéria jëm jëm Sierra Leone ndax Sierra Leone ak Libéria moom boo yoree ña boo yoree mille francs mën nga am fetal léegi balaa balaa suba Sierra Leone moom ni noonu la ñuy jaayee noonu la ñuy jaayee arme loolu moom man maa leen ko wax ndax lu ma leer la léegi nag information boobu bi mu amee rébellions yi ñëw attaqué dal ay ci yenn dëkk yu nekk Guinée euh, rey fa ay nit jàpp ci alal ji sàcc xar yi comme ni rébellions yi dafa dem delluwaat ci frontière Libéria ak bu Guinée Lansana Conté xam nga keroog lu mu njëkk a wax dane président libérien bi yow yow tëjal ma say frontière rek dëkk boobu ñu nekkoon ñoom rébellions yi man xam naa ko ndax am naa fay bokk keroog laa gis ci àddina président de la république bu nekk ci avion moo tax bu naan Tchad Tchad euh, Idriss Déby Itno rek moo ma a dem ci champ ci champ de combat yeeg yu demee noonu ban rey ko fa déet déet Lansana Conté def na ko mu yónni armée parce que militaire la mu yónni armée bi bokk ci ñu ne woon ci jaww ji ngeen baal ma ci kàddu gi mais gis nga village boobu ak rébelli quatre heures de matin leen attaqué dalee maanaam benn maanaam benn rébelli yëngu dafa taal dëkk ba ñu ngi mel tey rek nga fekk ab tool tool bu ñu bu ñu bu ñu bay ba naaf ko ba teg ko nga fa pétrole sànni ko ci naaf yëpp mu tàkk dëkk bépp la taal dëkk maanaam bëy ganaar sax des fa rébellion yi guddi googu ci lañ waxati lu jëm ci wàllu en Lansana Conté boobu ba léegi rébellion ya arrêté ba ñu jógee foofu Guinée pour wax leen ni pays bi amee instabilité ba nu jógee foofu am benn intervention boo xam ne bi armée bu Sénégal bii bii bii bi bii daf koo def jëmale ko ci Guinée Bissau booba ku ñuy wax Nino Viera moo fa newoon ñu élire ko démocratiquement mu am président xam yéen a ngi fàtte yàlla ngi fàttaliku mbaalo mbaalo ba daan ba daan ba daan fal la laa fa bu xonq xonq ba euh, te te def élection dafa gaañu def na élection ba tey ndeysaan ci Guinée Bissau mënta gagné mais monsieur Mbaalo moomu moom bala balante la ab la xam naa seen askan wi ñoom ñoo ñëwaat bi boori Casamance ak yooyu di làkk ay créole ak yu demee noonu alors am intervention bu Sénégal gi dem def génne keroog capitaine yu bëree bëri sunu soldats yi ñu bëri gaañu nañ Guinée Guinée waxuma Guinée Conakry de Guinée Guinée Guinée kii lay wax Guinée Bissau intervention bi réew yi demoon Guinée ca la bokkoon Guinée am tey tey tey tey coup d'état ca la Sénégal ca la bokkoon bon Sénégal dem nag dugg ci biir Guinée def def xeex bi moom léegi nag frontière euh, Guinée Bissau Guinée Bissau temps yi sax dañ ko tëj ndax coup d'état bi diggante démb ak démb Embalo nee nañu yokk seen sécurité foofu léegi euh, comme Guinée Conakry dafa am frontière ak euh, Guinée Bissau armée bu Guinée Bissau ñëw taxaw ci frontière bi di jàppale waa rek tuuti Sénégal maa ngi bëgg wax information bu doy wax mais dañoo déserté dañoo daw armée ba keroog dañoo daw mel num Sénégal moo fa des dir dirlu xeex ak ñoom ba réew ma jël ci jàmm kon Sénégal tey jii bu demee ba mën a négocier ak Guinée Bissau ba Guinée Bissau jàppale ko ci xeexu Casamance bi <laughs> dañoo dañoo delloo bàtt ba ca ndaal dañoo fay naar bi xoromam rek waaye Sénégal yàgg na leen a jàppale ñu Gambie gi en 1981 euh, ku koy Samba Sagna yéen a ngi koy fàttaliku intervention yi président Abdou Diouf defoon ak la ci aju woon te moom te ku koy Samba Sagna euh, ba mu jógee Libye Xadaafi ko joxoon gànnaay waaye ak ak ak ci astafurlah bukki ni wéré yi ndax ñu ko ñu leen doon xeexle foofu ku koy ku koy Samba Sagna moom Dakar gi la gaañoo fii fii lañ ko denc alors na Conté ñu coup d'état ko mu dem mu dem ñu defaat yenn attentat mu dem ñu def nag léegi élection ma new nag léegi ci euh, maanaam Alpha Condé Alpha Condé en 2010 mu ñëw ñu def l'élection mu gagné 2015 mu gañewaat gañe goo xam ne gii dans l'histoire du pays du monde munoo nga nekk ci opposition am lu mat quarante huit pour cent quarante huit pour cent ah maanaam cinq maanaam maanaam lu mat cinquante deux pour cent opposition bi keroog amoon nañ ko sawaay amuloon trente pour cent te te booba Cellou Diallo bi nga amoon quarante huit pour cent moom defe naa vingt vingt deux xuma trente nangam pour cent la amoon naka la ban réew ngeen gis ñu def élection premier tour opposition bi jiitool quarante huit pour cent nga xam ne ñaar ko amaat am deux pour euh, am cinquante pour cent yow amoo sax quarante pour cent ñu def élection nga gagné booba nag neexul ba neexut neexut a tey wii yoon kenn du France waaye loxo France nga ci woon ndax taraangam yëpp mi ngi woon France euh, Sékou Touré di recevoir guinéen yi am benn benn pour Fouta bu ne ko tabax bii de maa ko moom étage bii de maa ko moom fii ci kii ci France mu ne ko ah, rëy na waaye dafa ñaaw mu ne ko lu tax mu ne ko bala moo balaa kon moo rafet moo mën a rafet nga tabax ko fi nga fi nga fekk baax ci Guinée. deux mille deux mille deux mille quinze mu sàcc élection yi gagné France jàppale ko ci léegi nag mu metti waa Guinée population bi def marche def lu ne ñu rey leen deux mille vingt bii mu dañ koo gañee mu foqar ci waat forcé troisième mandat mais force troisième mandat boobu firiwul la moo tax ñoom dumb yaa eh, jël jël jël jël jël jël gëne de déedéet affaire bi sawara wi yàgg naa yënd un élection deux mille vingt yi armée bi ma nga fa woon gendarmerie ma nga fa woon police ma nga fa woon garde rapproché yi ña nga fa woon bu président bu présidentiel bu nekk fële ca Conakry ca boori Kaloum fii fii amee force spéciale yi ña nga fa woon te yi la preuve mooy lan moo tax tey ji Alpha Condé mii mii mii mii mii mii tey coup d'état bi yëpp pourtant Guinée am na gendarmerie bu mag gendarmerie nationale Guinée am na bu mag am na police yu mag ki def kenn déggu leen ci armée bi rek a jóg parce tout simplement Alpha Condé ci boppam moo posé woon problème un euh, pandémie bi dafa jaar gën a gën a gën a rendre pauvre réew ma amatuñu woon dara de mu tëj frontières yi frontière Sénégal ak Guinée Bissau kenn yaa waxoon naa ko fi kenn ku ne xam na la ca xew ndax booba dafa bañoon ne kii euh, bi bi Pël euh, Fuuta yi nekk ndax da nga ko fi gagné ko fi gagné ndax Sellu am kër Dakar moo ko fi gagné ak yu demee noonu mu lànk moo tax diggante moom Macky Sall dañuy négocier nii rek waaye dara euh, taxu ko taxu ko taxu ko taxu koo lebet daal dafa dafa ñegal léegi Alpha bi mu gagné waati élection yii yii nii nii nii nii nii en 2020 armée baa nga foon ni mu ko defee dafa jàpp opposition bi di tëj muy benn te booba armée baa nga koy seetaan mu jàpp opposition euh, def leen ay prisonniers politiques ba noppi rey ay doomu aadama yoo xam ne daanaka ñam ca rey ñi ci bëree bëri bokkuñu ci xeetam beneen bi ci tegu tamit waa France dem fa RFI di ko interroger mu ne armée bi deful dara yéen tubaab yi yéen yéen a bëgg jaxase sama réew alors que armée bi force euh, présidentielle bi gaz rapproché bi ñoom ñoo doon génn ànd ak góob yi dem dem dem tere askan wi c'est le seul pays au monde Guinée Conakry boo xam ne bi arméem day tiré ci peuple am man ci Guinée rek laa ko gisee waaw ñaar daal ba ñett ba ñeent Guinée laa ko gisee armée boo xam ne bi da ngay tiré ci sa peuple te kon bu leen neexoon ba Alpha Condé def campagne yi jàpp ko te jàppuñu ko woon ak itam réew moo xam ne mi say doom yi ne ci biti mu ëpp ña fa léegi bi loolu amee ñoom Mamadou Doumbouya bi ñu ngi fi woon mais c' était pas leur problème mais économiquement Guinée dafa dellu ginnaaw te économie bi nag bu neexul neexul ba neexul génneel suuf yi génneel soose yi génneel malanke yi mais pour Fouta yi ñoo ko yore parce sur le plan commerce ñoom ñoo yore la fa nekk lépp pour Fouta yi bi Alpha Condé bi Alpha Condé falo dañoo réunion ci Conakry ne képp koo xam ne kii pour Fouta la sa économie génnee ko réew mi yóbbu ko Dakar wala fu la neex mais bul defati benn commerce bu jëm importation loolu moo tax Alpha Condé mere leen na ko yow Cellou bu dee loolu kon yow doo fi gagné de Dalein Diallo moo la gën a xam ne pour Fuuta yi dañoo dañoo bloqué l'économie et loolu soldat bi jël euh, réew ma barki démb xam na démb xam na ko Doumbouya ndax wax na ko wax na ko de waxu ko nag démb ak tey mais mat na ko wax nee na woon euh, am na benn jour mu ci benn journal mu ne en tout cas que y a pas d'économie les Pël Fuuta nangam ak nangam Pël yi ne ñoom lancé na compté comme sàccaat na gagné ñaari yoon Cellou seen alal yëpp mi ngi diggante Sierra Leone euh, Dakar dakaar gi ñaata pël Fuuta ñoo fi ay kër yoo xam du jeex donc loolu moo tax ñu def coup d'état bi sur le plan économique ay baraaj la fa def barrage dispensaire yam fa def ci ay ay ay kër yu kam la ko def moom Alpha Condé ak yeneen ak yeneen ak yeneen sur le plan économique mu mu mu mu xuloo ak France ñaari réew ñoo doon agir ci biir Guinée mooy la Chine et la Russie te Chine ñoom bu leen leen fa indi moom feer ba ak pétrole ba ak yooyu moo leen indi ak zircon ba Russie loolu moo leen ndax militaire u Guinée yu bare bari comme Mali dañoo def seen formation en Russie li may wax nii nag indi ko taarixiyan maanaam li may wax ni indi ko historiquement damaa bëgg ñu xam ne Guinée du lii nii rek coup d'état mbalax mbalax waaw euh, Alpha Condé jóge na fa danga ma troisième mandat déedéet déet histoire la boo xam ne bii Alpha Condé maa ngi leen di waatal yàlla ne leen bu Guinée personne Alpha Condé intéressé wu redérer ce pays bii indi fa démocratie comme li ko waa ji waxee tey euh, def gouvernement d'union nationale. te Alpha Condé euh, bi nga xamee ne am na sax lu ma tëb Lansana Conté da jóge na fa mais yéen a ngi fàttali ko Dadis Camara Moussa Dadis Camara Moussa Dadis Camara ak ak genn wàll la def ca ak quelques mois la def ca réew ma waxoon naa ko tey ci benn xaw man groupe laa ko waxati buñ ma invité woon Moussa Dadis Camara yaayam Burkina bi la mais Moussa Dadis daa xàcc tuddatul Moussa Moïse la tudd moom ci boppam moo wax ci kàddu boppam ne jullit laa woon waaye léegi chrétien la Moussa Moïse dari Samara moo ko wax de nee na moom léegi chrétien la mu dem ci frontière bi diggante ginne ak côté Burkina Faso jëm la ca kaw ci dëkku yaa dëkku maamam yu jigéen yooyu ak yaayam mu toog fa mais Dadis Camara dafa am benn waay bu bind ci moom bu ñu tuddee David Del Amo wax naa ko ci benn groupe tey David Del la bindkat la historien la la ku ku xaritoo woon la sax ak euh, Thomas Sankara mais nga xam ne moom itam dañ ko rey dafa bind ci benn livre am ne Dadis Camara show rek lay def show moo tax livre bi onlawaan bi da ko tuddee David show David show la ko tuddee livre boobu 174 pages la téeméeri xët ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ay 15 euros la ko doon jaay ak yu kenn xamul te te 15 euros ragal naa ne ay 9000 nangam nangam lay lay doon ci CFA Dadis Camara waa ji dafa bind moom wax ne. man de jaaxle naa ci dëddis nii ñu ne ko lu tax mu ne day yar ay xaj fanweeri xaj ak juróom yoo xam ne ay raas lañ am na ko mi ngi ci livre li may wax ni billaahi wal quraan ak mi ngi ci livre boobu beneen bi tegu mu ne ah man de jaaxle naa dëddis kamara mi tabax na étage boo xam ne bii ci Guinée ay bokki boppam rek la fa def ba ci bindaan yi ko doon liggéeyal mu jox leen ay luxe yoo xam ne kenn xamul lu mu tëddi demoon na sax ba am projet def fusée naaw ci jaww ji comme ni ko américains yi defee am am amoon na lu mel noonu ñu ne déetawaay Dadis Camara yamul foofu li mu ne man yëg naa ne occidentaux yi man maa ngi ñoom sama diggante ñoom du neex ndaxte ñoom ils soutiennent ñoom moo ko wax ci tubaab ci tubaab la ko wax ils soutiennent les dictateurs mais quand il y a des opposants euh, forcément euh, ils vont apprécier loolu euh, David David Delmon moo ko bind ne la kii moo ko ko wax Moussa David Camara moo ko ko wax ne ko daal maanaam occidentaux yi européens yi dañuy jàppale dictateurs yi ñi nga xam ne lu leen neex la ñuy def sàcc xaalisu réew mi fal seen i bokk def di def di jaay doole waaye nag ci réew moom bu amee kenn ku leen opposé rek ñu ñu tàmbali rafetlu di jàpp di jàppale kooka. ndax euh, euh, David Camara moomu nekk ci ay mbir yoo xam ni kenn xamul lu mu tudd kenn xamul lu mu tudd woo benn tubaab teg ko mu toog mu xas ko. premier rencontre bi bi bi bi Moussa David Camara mooy sax laa ndax nekkatul jullit njëkk def directeur douane bi la njëkk a dàq. moo taxit moom itam gis nga la ko fa jëlee waa ji nga xamee ne moo ko sànni woon balu fetal ba te mu rëcc daw ñëw Dakar gii la faatoo fii waka wakaam gi la dëkkoon tur wa def maa rëcc ndax li ma nekk ci audio yi waaye man naam xam la ma pare sama xel di si wàcc fii lañ ko suul ci wakaam gii kon Guinée seen histoire histoire xeet la histoire am na sax ku mas a wax ne depuis Diallo yi am na benn sëriñ bu leen wax ne Pël Fuuta du fi falu loolu nag du wax ju wér dama ko ko dégg nii rek ci ci ci weewu aw aw jànguma ko fenn dañ ma ko wax sama nopp yi nii rek noonu laa ko dégg Camara moomu mais lu nekk lu nekk ci àddina bi def na ko après mu fetal stade stade boobu ñu tuddee 28 septembre parce que le 28 septembre 1958 foofu la De Gaulle ñëwoon foofu la ñu amoon seen indépendance moo tax ñu tuddee ko stade boobule euh, Dadis Camara jël réew ma woo ñëpp nag ñu yore xaalis ak ñëpp mu woo def économie ba lu ko neex bañ jëlee ko fa yi ñëw gis nga ci la Alpha Condé door a falu Alpha Condé nag ba mu faloo man bi nekk buur lu ko neex def malenke yi jàppale ko ah ah soninke yi nekk ca côté bële ah euh, suusi yi nekk fële te nag ñoom seen góor ñooñu du liggéey seen i seen soxnaay liggéey ful fuute yi képp la ñaari ñaari soxna yeeg jëkkër yëpp di liggéey donc loolu lépp dafa am xam naa maa ngi maa ngi taxawandi parce que vraiment il est vingt et une heures six te samay te samay faraid te sama farata yu bëri bëri defaguma ko benn ñaar itam dama ñëwoon rek pour wax ni globalement maanaam dama damaa dolli xam-xam rek karaw ci nag ci xar mi pour ñu xam waaye képp koo dégg mu naan Guinée la fa xew troisième mandat bee tax xamoo li xew gis nga Alpha Condé mi mënoon na faa nekk doxal réew bi économie bi baax lépp nice bu fa doon def cinq ans euh, euh, mandat yoonu armée bi newu newu ci parce que loolu loolu loolu moom moo am ci churur yi nekk foofu foofule mais dañoo dem ba xam ne réew maa ngi suux te waa ji mënatu la contrôler dara dara dara dara dara ah, la armée bi def seen intervention moom Mamadou Doumbouya mii nag am na lu gaa yi waxul ci moom xam nga Thiès la Thiès la la nekkoon waaye daa am ay bokki boppam yoo xam ni moom dafa laal ci bambara yoo xam ni foofu la daan añee fii ci quartier xaw ma R100 la xaw ma daan fa dem di lekk ak booba nag ci ba euh, booba nag gën na fi gën a nekk gone ndax booba ci euh, saxaaru Bamako gi booba taxawagul woon gannaaw bi nag 2012 2013 réformation yi la waaye nag fu xeex am ci àddina bi dem na fa xarit la nag ci tam yi nga xam ne moo jiite Mali te li leen xamal a Alpha Condé ko def de ndax ci G5 bi ni ñuy xeex ak Sahel be yooyu ak force Barkhane bi ñoom ñoo lëkkaloo foofu noonu pour protéger la frontière moo tax temps yi ñu toll nii Embalo moom am na benn président bu mu waxal lu ma wax lu mu tudd nag tur wi ba daal frontière u Guinée Bissau bi gën nañ koo renforcer gën nañ koo baaxal itam euh, waxtaan nag du jeex wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu